ayca mu ngi noonu salaamaaleykum Lamy Fall salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum waa Sénégal li koy defee saa su ne rek euh, ngeen di ànd ak euh, télé bi nga xamante ni moo di Double I euh, di si ànd ak ki nga xamante ni moo di seen xarit seen mag seen rak seen doom lay muy Dj Lamina tey ñu ngi fii ci Yoff ci appel bi nga xamante ni yaakaar naa ni appel la boo xam ni tey boo fi ñëwee da ngay xam ni àdduna Sénégal ñëpp daje nañ fii nga xamante ni moo di ci Yoff tey nag dañu ñëw ci dal bi nga xam ni waaw sunu sunu moom moo moom moo def dal bi fii. waaw xam naa balaa ñuy dugg ci benn moo dañuy euh, waxtaan ak kii nga xamante ni moo di Ablaye Ndoye di sunu xarit moom tamit nekk ci dal bi nijaayam euh, moo moo yor dal bi sincèrement depuis euh, ñaata at ñu ngi ci dal bi waaw moom daal nañ ko jox micro bi laaj ko moom mu expliqué ñu exact dal bi kañ lañ ko commencé ah waxtaan ci ay détails yu bëree bëree bëri après ñu def benn interview ci ci ci dal bi ngeen suivre yëpp topp leen ñu sama gars yi ay ci ñu ngi noonu. jaajëf mu ngi noonu ah ni ñu koy waxee saa su ne ñu ngi fii ci waañ bi boo gisee affaire yi ni mu demee nga xam ne mooy loolu quoi waaw ki ma dalal nag sama sama micro mooy Ablaye Ndoye ni koy waxee rek boo ñëwee fii di nga gis gars ni ñuy organiser et tout ci waañ bi ay Baye Fall laa leen tuddee quoi waañ bi waaw Ablaye Ndoye euh, ñu ngi lay nuyu di la jaar bu baax ginnaaw bi ñu la dalalee suñu micro bi nga xamante ni bon moo di euh, Double I te dañu fas yéene ñëw waxtaan ci li nga xamante ni moo moo di moo di ci euh, appel bi. waaw tey bëggoon nañoo xam appel bi wax dëgg yàlla euh, kañ la door ba fi mu toll nii. Mhm. après ñu dugg ci dal bi nga xamante ni euh, mooy dalu Abdou Aziz Ndoye kañ la ñu sos dal bi ak fi ñu toll nii Abdoulaye Ndoye ginnaaw bi nga nuyoo ñu ngi lay ziar. bismillahi rahmaani rahim. auzu billahi mina seytaani rajim. Euh, DJ Lamine maa ngi lay nuyu di lay ziar bu baax di kontaan ci sa taxawaay ci sa liggéey di ko rafetlu aussi tamit franchement rafetati na la laay wax waaw da nga ñew ci bës bu reuy bës bu am solo bës bo xamanteni bi bii du ma ni bësu layen bësu umma islam bi yépp la ndax ku ne ci ñun lu mu gatt lo gatt dégg-dégg dégg nga ñuy wax imamul mahdi ak feñam bu wara am ci jamono mu nek lu aduna di xaar monde entier kon ñun senegal rawatina dër bu ñuul bu nu ko yàlla jaglelee mm-hmm. loolu dañ cee war a xaar suñu tànk tubéy dañ cee war a sant yàlla suñu borom ndax du lu ñu defal yàlla ba tax yàlla feeñal ko si ñun loolu nag xëy na boo ko waxee dina am ñu mu jaaxal waaw ndax xëy na dër bu ñuul bi moo tax sax ñu weddi ko mais bu bu ñëwoon ne bu ñëwoon nekk nekk naar wala mu nekk weex dinañ ko gëm mais Seydina Limaamu alayhi salaam bi mu ñëwee lenn kese la wax may dim may tay yalla la so démb mu def ma Seydina Mohamed ma liggey fa fukket ak ñett matal mu def ma ci bir suuf ñett fan ma tepp sama bammel neena fofu foofu bi mu bi mu seqee jéego seqi ni jéego mënu ko gis xel mënul daj fan la tali te nee bam ba fofu da foofu dal ci ci mi ci ngor fiñu sama sama mam li was gontu won demb mooy xuntuma ca ngor xuntuma ca ngor te li ci yéeme nee na sax na fa lu ëpp junni at booba ganeegul ci waajur wu góor ak wu jigéen xam nga mbir sama boppam dafa yéeme ndax yàlla buñ koy utal loo xamante ni bii mën na kaa mënu ko kon yow sa gëm yàlla des na. kuy jaay kuy jënd loo xamante ni bii du la jariñ te da lay lor xam nga kooku. bàyyam weddi na mais mais mais mais li nga wax ni maanaam euh, histoire la boo xamante ni yaakaar naa ni euh, lu lu lu lu am solo la pour doomu aadama yi xam ko mais actuellement nii nii ndax xam naa ne yaa ngi ci waañ bi te buñ la keppee tam aussi sa yaram tàng dinañ gën a développé lu bëree bëri bëri mais maanaam woote bi bésu woote ba ak lu waral woote bi yaa ngi ci dëgg la mais bés bu woote ba ba fi ñu toll nii tey lu ko waral dëgg la xam nga Lamine bi di seen alimaam moo mel noonu mënoo koo indi ko layal te doo jaar ci yonante yi pour mën a sukkandiku ci loolu ndax ku nekk ñoom rek dafa laal ci ñoom ndax mooy Seydina Mohamed mooy Seydina Mohamed loolu waruñu rus ci ko wax waruñoo complexe di ko wax ndax yàlla moo man lu ne dafay rey di dekkal waaye nag exemple yu bëree bëree bëree bari comme ni nga ko waxee comme tey ni nga ko waxee dañ koy tënk rek ndax li ñu indi mooy appel bi kaña la sosu ak naka la deme demee Seydina Limaamu yàlla dafa dogal lima ma la wax nii ba ak leer di xol fan lay dal neena bi nga la yelu lu tax mune gisul lu upp sutura xetul lébu ñu nekkat lu ko waral ndax mune ci ak sam ak solo gu yew ak nangam kon kooku xam kon tan na fi mu war a suñu mam maam Kumba Ndoy jur ko ak mam Alassane lay ciow legi amee andi jaasee mi ñëw toog bàyyi ji nekk ana ma tëmbali non mu nekk andi wu ma dara mu nekk lu tax mu nekk ndax garab gu ma nga may jotal dima sabal xam nga karam gooju mënees ñuutal kooku doo ko gor legi, lolu avant 40 ans yi di mat ñu wota la bi 40 ans yi maté bisub dimanche fekk lu ko jitu wajurum genn genn na adina wajurum bu jigen ñetti at ci euh safurlaa ñetti fan dafa tëdd guddi yalla won ko malaka mu yor ak rogu sel def ko ci pagne bu rafet pagne urus jëmboog moom asamaan mooy suñ ci sikar bu réew ngay dégg laa ilaaha laa malaaka mi la doon wax ko gan fay moo ci ne te seen site bii i baren di ngeen xam ne liggéeyal ngeen ko jëral liggéeyal yow loolu yow sax man ma cee wax da ngaa baax di ma jox micro rek ma ciy wax ci kañ lañ commencé fii ndax loolu lépp fi la fekk 2014 la yàlla dogal ci lañ commencé dal bii yaay Amy Ndoye muy maire Soda moom moo ñëw ci kër gi fii lijjanti kër gi ñëw wax ko paa bi nekk dama bëgg ñu soos dal nangam expliqué xam nga yàlla rek lu muy def dayam fu dayam sabab gën naa am na yeneen yu laxasu nangam mais dama lay wax l'essentiel bi rek te di ci yéeme tamit 2014 boobu ñu def euh, appel bi yoo xam nga dara paa bi daf feebar dem Fora jëndi nag dem jëndi ndugg yi jëndi lépp ba pare ñëwul moom ñëwul ñëwul lekkul ci affaire yi defu ci dara nga xam ne kooku yàlla moo tax muy def moo waral sakkan ne muy gën di yokk ba ñuy door a ñëw fii matuñu woon vingt personnes te léegi mbooloo fii ne kër gi boo duggee daa fees del kaw ba suuf kon loolu sant yàlla la te olof nee ne ku yokkuwul ku ku yokkul yaa wàññi kon sant nañ yàlla ci loolu 2014 lañ ko commencé ba instant bi ñu ngi koy doxal ban koy door commencé ci la xale yi nekk ay liir ndaw ami ak njaga te léegi am nañ fi ñeneen ak ñeneen ah waaw kon sant yàlla quoi yow ñu lay gërëm di la ñaanal yàlla yokkul la yokk gaa yëpp maa maa ngi sant gaa yi di la ñaanal su ma limee damay juum gaa yaa ngi nii toog seen taxaway rafet na su ma ñëwee laal dara luma wax ñu ne ma bayil kon man aw ba seen fay man dal vraiment sant na gërëm na di kontaan ci ñëpp di ñaanal pa bi aussi tamit ndax dañ né nit ki bu la bootee di bëre dang kay ñaanal yalla dafal ka ndam mu daan ndax buñ ko daané day war sa kaw ki ka daan war sa kaw mu nekk ñaar ñu war sa kaw mais vraiment tubarkalla boo bëlee tàyyiwul lo wax mu ne dama ci def lu bon ma ci nangam lu bax la ci def ba ci sa xulo yalla naka yalla yagal suñu kanam yakate at yu bare bare bare bare. em fekk lepp ci kanam ñu dem banakan togal ñi géré ñi géré yalla man yàlla mën na ko yàlla na ko def boy kontaan na allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim jërëjëf non lay demee comme nima ko waxee sank ci départ bi parce que mbir la bo xamanteni dafa am fumuy commencer pour nga mën comprendre exactement il faut moo waral waxtaan bi yëpp ñu développé ko parce que du rek hasard suñu borom amul hasard waaw parce que àdduna noonu lay demee lépp loo gis lu ne am na fu muy commencé ni mu ko waxee noonu la ñun ñëpp ñoo nekk ci ci affaire bi xam nga te ñu ngi nii si waañ ngi ci waañ bi di yëngal fu mu toll nii ceeb yaa ngi xeeñ fu mu toll nii yàq rek la ñuy fu mu toll nii waaw mais dañuy def nag dem dugg si gars yi dugg ci paa waxtaan ak ñoom ah, ñu gën a mën a développé bi ñu ngi ci yi mafia bi nga xamante ni ñoo ne ci bi mooy gaynde yi yaakaar naa depuis démb ba léegi ñu fii ci kaw nag bi bagage yi et lépp gars yi mooy loolu quoi bàyyi laat ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di la wax ni dal bi gis nga ni muy demee yow noo gisee appel bi chaque année yaa ngi fii affaire yi mu ngi dox mu ngi nice noo jàngatee affaire bi quoi. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu gars rek sant yàlla baax a baax di sant na baax affaire bi moom ni ñaan yàlla fekk ko ay déen déen ndax changement am na vraiment changement am na fi quoi affaire yi waaw gars moom duñ jàpp duñ bàyyi. gaay dip dem ma lay ñëw fanaan baas njiite yëpp ngir appel mo ngi appel mo tax day ñaan ñëm bàyyi ngi ñu bis bi ya ko fekk ay den den den den vraiment xol seen mënu ñu wax ñu xol la sedd seen gaay yëpp yene nay demé gaay yëpp seen yene bu mu baax rek moo tax ñela wuñ yene nuy affaire rek mu baax day ñaan yalla rek ya ko fekk ay den den den den avec sawan baawa innovation bi gëna bari bu déere ñu gars kaka kom ñep affaire yi gën gaaw mais no gisé wañ sant nañ baax san nañ ba waaye ñoom gars yi moom nii rek den di jéggi gars yi duñ bàyyi moom ala accu rek waaw aw ma ragal yaa am gën a xam affaire moom vraiment moom waaw rafet na gars yaa ngi nii ñëpp a jibi Ablaye Ndaw aussi dooy gars yëpp jox jox gars ah, moom nee na waaw waaw sant rek ñu sant bu baax gars yi affaire moom affaire moom na trop waaw ñu sant yàlla rek waaw affaire bi gars yi yàlla yokk fan bu baax a baax ñu fekk ko ay déwén déwén déwén vraiment affaire bi moom neex na trop waaw ñu sant bu baax nag ñu sant bu baax Lamine macha allah. mais kontaan nañ mais waañ bee nekk noonu ili gars yi noonu lañ koy defee bu Aliou ba mu ngi noonu nañ nañ nañ dugg si gars yi nga xamante ni ñoo ne ci biir waañ bi soxna si kii moom ñi ñii chaque année ñoom ñooy ne ci waañ bi ñooy gérer togg yi comprendre nga loo loo loo gisee sunu dal bi. te chaque année yéen ngeen si ceeb yeeg yooyu dëgg yàlla. Mhm. fi dara jeexu fi. macha allah paa koy ñaar fan gu dëgg wér gi yaram rek. macha allah laf ca te yéen xale yu baax ngeen. suñu dikkee ngeen yaatal ñu lépp jël lépp tekk suñu loxo. xoolu leen gisu leen. yéen yàlla leen fi yàlla saxal. mu ngi noonu ah moom moom ñu waa waañ bi la. ah ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy gérer togg yeeg yëpp. waaw fii suñu suñu jigéen la moom tamit reer yeeg affaire yeeg yëpp ñoom ñoo koy togg ili si loo maa ngi fi. <laughs> xoolal jàmbaaru Abdou Karim Sall ngay am foofu di ko mais noo gisee appel bi chaque année yaa ngi fiy ñëw gis waañ beeg yooyu ñu fekk leen fii ngeen di toog di gérer noonu la koy dundee. appel bi ah macha allah chaque année day gën a neex wax dëgg yàlla chaque année day yokk day yokk wax dëgg yàlla waaw. mais waañ bi ak saxaar beeg yooyu noonu la koy dundee. Ah, jàmm rek ak salaama ah. waaw sëñ bi jar na ko sëñ bi moom jar na lu ëpp tàngoor yu quoi war na yàlla neex na moom neex na moom trop yokkute am na ci ah, waaw neex na trop billaay walaay ay tamit noonu ili eh. nee na neex na trop waa waañ bi ñoo nekk noonu nañ déplacé wu ci jàmbaar ji moom wax dëgg yàlla depuis ñaari at moom tam mu ngi fi bu ñëwee xaadim géré cin moom ñoom male xam nga ceeb yi xoolal li nga li jigéen ñi ceeb lu ko raw rawalee ceeb moom mii sëñ Xaadim ñu ngi lay ziar. doo lay ziar sëñ noo gisee appel bi ak heure boo ñëwee waañ bi jigéen ñi jël cër bi yëpp jox la ko bàyyi ko sa loxo noo dundee loolu. waaw sant rek ndax euh, ñun ñëpp benn lan maa xam ne moom lu baax moom boo koy def. bul bul tànn foo ngi koy amee. seen aliment moom boo ko loo ko defal. Mhm. sa bopp nga ko defal. ndax bisam moom taw feex ne lool chaque année day gën a yokk. moom di ñaan taxawaay bi yokk. si barkab Sëñ Tuubaa sa borom defal ñu tawfeex ñu gën kaa fekk ay ati ati at te gën kaa jékku yow sama waay mais caf ko loxo bi lan la ah non nekk si daayira rek nekk si daayira ñu ni formé ba nekkee xale ba léegi si daayira la ne xamuñu ne nekk si daayira macha dafa la ñu tënk gi nga bu ceebee barki rasul laa nga xam ne ceeb am <laughs> yéen laa <laughs> topp ma ñu dem dugg ci waañ bi maire depuis ce matin ñoom ñoo fi nekk di xool li affaire yeeg yooyu di tranché boo xoolee pomme de terre yeeg soble yi ñoom ñëpp ñoom ñoo koy gérer et pourtant mënoon nañ ko bàyyi ak ñu na ah, mais dañ ne bàyyi la ñu gérer loolu yaay booy nu ngeen gisee jàngatee appel bi. yaa neex rek lañ ko gisee macha allah at mu ne rek muy gën a neex yàlla nañ ko fekkee at yu bëri te ki koy def yàlla na ko yàlla dooleel yokk doole ji yokk man gi yokk wér gi ba mën ko at mu ne mu koy gën a mën ci barke yonent bu tedd muy ndooy sunu séeri ah loolu foor na am na jom kii nag sunu yaay la muy yaay Ablaye Ndoye waaw di sunu yaay di sunu xarit yaay booy te yaakaar naa ne ginnaaw yàlla lii lépp sa loxo ngi ji noo gisee appel bi. appel bi kay neex na jàmb ji bari na yéen a ngi jàpp ñoom la Diallo a ngi jàpp ñoom Ablaye te dawunu merunu ñoom ñëpp a ngi jàpp ak xaarim ñoom ñëpp xale yi ma demee damay juum paa bi kay def yàlla na man lu man ren yàlla na ko man déwén ñun ñëpp a ngi jàpp ñëpp a a ngi ñoom ñëpp ñu ngi toog dara ñaawul ñoom ñëpp ak jàpp yal na leen yàlla fay loolu man de yal nañu ko mën de woon yàlla bu ñu gisuñu ragal yéen ñëpp maa leen di ñaanal yàlla ngeen gudd fa wér ak wér le soo tamit maa koy ñaanal rek mu ngi jëlee oto si rafet jox ñu moog amidoo yi. mais Soxna waaw mu ngi nii moom sunu maman la wax dëgg yàlla li li Ablaye Ndoye wax sànq appel bi bi muy door daanaka dal bi moom moo ko dox. lépp lépp lépp si njàmbaaram ak bëgg-bëggam maman Soda ñu ngi lay nuy di la ziar naka nga gisee appel bi chaque année bu ngeen wootee rek dal bi di gën a yokk macha allah di gën a neex. sant yàlla bu baax rek di julli ci yonent bi sant Seydina Issa ak Baye Laay suñu yonent bu tedd bi ñoo ngi ñaanal nag suñu góor gi di ñaanal ab Aziz Ndoye ndax bu ñu am bu demee ba egg fii yàllaak moom la ñu ngi koy sant yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax di ñaan maam Baye yokk ko. lum ci mën ren bu déwénee yal na ci mën lu ko ëpp ñu ngi sant euh, waa Kër Mbay Faal yi ma àndal sama waa waañ di leen sant di leen gërëm di sant xale yu góor di sant góor Baay Faal yi fi nekk ci biir waañu di sant ñëpp ba dal bi sosoo ba tey ñoo ngi nii Fadama ngi nii Yaram Mbaye ngi nii ñoom ñëpp di ànd ak man waraxa nga ne ca ket ga mbëgge njaay ñoom gis nga leen kenn bàyyiwul mu ñaaw ñoom ñëpp a ngi si jàpp ñu ngi ñaan yàlla yal na ko bàyyi laay yokk yëkkati ko ba ca kaw a kaw daal bi na jëm ca kaw a kaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di leen sant nag di sant Ablaye di sant ñëpp waaw ñoo ngi sant ñëpp képp ku fi taxaw. jërëjëf Ilimane mu ngi noonu yaakaar naa ni euh, waañ bi la ba tey génnaguñu waañ bi ah ok sunu yaay booy da cee bëgg a wax ndeysaan dëkkandoo yi waa waa Kër Mbaye Fall la ndax chaque année bu maire bi jógee ñëpp dañuy topp si ginnaaw yaay booy noo gisee appel bi. wallaay kontaan rek sant yàlla yal na ko yàlla mën loo at bu jot yokk wéram ak kàttanam ñoo bokk dëkk wax dëgg yàlla baña lu ñu daara lu mu xew xewle ñun ñooy njëkk a teew ñoo ngi koy sant bu baax a baax yokk wéram wax dëgg yàlla jabaram tamit ku baax la bu appel jotee ñëpp lay xottil kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax waay yàlla lu mu mën ren rek yàlla na mën dëwén incha allah jërëjëf waay. jërëjëf kontaan nañ ci loolu Ili topp ma noo kii bañ a wax moo tax mu sex socc bi man xam naa ñu bëgg a wax ñu bëggul wax kontaan nañ yaakaar naa ni boo xoolee boo xoolee yaay booy meññ boo xoolee affaire bii nii nu mu tudd sax li nu ñu koy woowee ah. kaanisa non ni ñu ko mélange noonu la tudd ingrédients boo gisee li nga xam ne ñii ñu jàmm ngoon ah kan mooy créer affaire yi nii ah mu ngi mu ngi noonu mère waalo waalo mooy créer loolu ah nañ nañ nañ jël nañ jël soxna Séni mère waalo waalo ñu jël la. ah mu ngi noonu moom moom yaakaar naa chaque année mu ngi ci dal bi ñu defar ba mu baax mère waalo waalo nu ngeen gisee loolu. sant yàlla rek di sant sëñ sëñ Babacar Si ñoo ngi gërëm doo di ko ñaanal yàlla lu ma mën ren bu déwénee yàlla na mën lu ko raw ñun ñoo ngi di ko waalo sa ginnaaw la bu ñu xamee fii yàlla ak ba kanam a tax mu jaralu ne nag weccoowu noo kenn nag waaw bu mënu fi indi booba ne wu fi ba léegi macha allah macha allah. ñu fekkee lépp daal. yàlla na fekkee lépp daram bi yàlla na dundee ba ñu ko fi tàntal tànt baax. ci barke Seydina ñu boole màggal gi ak nganala gi ci barke Seydina Mohamed jërëjëfati. kontaan nañ ci loolu yaakaar naa ne ñaanu xol la waaw ci Séni la di suñu jigéen di suñu mag di suñu xarit ne ci kër gi moom tamit Séni ginnaaw bi ñu la ñu ngi lay ziar appel bi kenn du la wax ndax fekke nga lépp macha allah waaw tey noo gisee appel bi heure bu ngeen wootee ñëpp ñëw affaire yi gën a yokk saawan baawan. kontaan rek kontaan rek chaque at nii la moom suñu wootee ñun ñëpp ay ñëw teew jàpp si nag waaw ñuy ñaan rek mu gën a jëm si kanam rek ñu koy fekk ay at yu bare bare bare neex na torop macha allah. <laughs> kontaan nañ ci loolu koo koy seeni yaay Cheikh Ilmaan jëlal ma kii olof bee leerul baax moo tax bëgg ma kaa jox mu wax mooy chéri Aliou baax xool ko noo tudd. <laughs> salala salala <laughs> kii du wax léegi nii jëkkër ji bu réeré man la koy laaj te déggu olof mu noonu xandooy ñu ngi laa ziar. doom la ci père Abdou Aziz Ndoye moom tam macha allah bàyyam di jàmbaar ci dal bi yëpp ginnaaw yàlla paa bi la noo gisee dal bi ak bu ngeen ootee chaque année rek affaire bi gën a yokk. ah moom macha allah père bi moom jaar na fi mu daan jaar dañ koy ñaanal mu yokk jëm ca kanam yéen jàpp ngeen ci dal bi macha allah kontaan nañ trop appel validé. pour nii rek. li nga sañ sa yaa ko dee ci appel. non jàppale say naa li maam rek woo tabee jar lii rek macha li nga sañ sa yaa ko dee ci dal. <laughs> waaw. Serigne Aliou lay doon waaw. tey ki taxawal nii sunu chéri koko la muy amindooy di sunu xarit wax dëgg yàlla ak lool lool lool lool kenn dara waaw chéri Ablaye Ndoye amindooy gis nañ depuis début wax dëgg yàlla ak yow di bëgg à chaque fois rek bu ñëwee nekk ci jàmm amindooy ginnaaw bi ñu la nuyoo dal bi ñu gis affaire di gën macha allah ñu ciy di jàpp looy wax ci loolu. kontaan rek kontaan moom bu baax moom kontaan ñoo bëgg mu nag ay gileem ay ñu gis euh, ce matin tey ni nga rangé sa table am na loolaal la. ah demee rek jéem jéem rek demee ak rek defar ba baax bu gan yi Awa, doyal ah waaw waaw c'est normal loolu lañ bëgg dañoo bëgg ku ñëw ndekki ba suur affaire yi des nga yóbbaale yaa ma gën a xam waaw. loolu ñu ci am xam tànkam yi dem ndax xolam yëpp a ngi fi. kontaan rek ci moom laaj kontaan rek ci moom Abdoulaye ma macha allah jàmbaar la mhm. daanaka sama sama sama doom papa la waaw maa mu magarak lañ nekkuñu jabar sama yaram daw na. mi ngi noonu yaakaar naa ni affaire bi loolu la quoi sincèrement ah, ah, lu lu duuf ci nag bi xajul ci cën bi ci côté boobu mais dañuy demaat feneen Fa Bintu doom ci Père Ndoye moom ah, moo ko waral lépp dëgg neex yàlla kontaan moom kontaan naa trop. doomu Paar. Thank you. te ba tey seen kanam bi dem mooy seen kanamu tey Aziz nag ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko wér dafal ko cet ci barke Seydina Muhammad dund nag ba mi di ko weere ko weri soo da pay ak njabootam ak ñëpp yéen kenn gënu leen jaa ngeen jëf Aziz moom amul moroom ma kenn waaye ma kaa yàlla na yàlla fay moo ko njabootam ak soxnaam ak ñëpp. kontaan nañu waaw mu ngi noonu ba tey ñu ngi biir baas bi. kii soxna Sale la jëlal ma ko Sale ngi nii moom tamit euh, gëj naa ko gis namoon naa ko. awal ma ko kan ma waral sañ sa bi nii yëpp <laughs> maam Cheikh ah, ca maam Cheikh yaa moom loolu mi awal yaakaar naa dal bi kenn du la ko nettali waaw lu ci bëree bëri bëri loolu dal bi nga xam ne chaque année yàlla day def muy gën a yokk xanaa kontaan rek di ñaan euh, yàlla nañ ko def ay ati at ci barke Seydina Mohamed ndax ngan moom bët démb ba tey lekkal naana tëddal ñu ngi kontaan trop di ko di wax yàlla na ko yàlla wéral te ñu ngi leen waa dina ko. nee ko muy père Abdou Aziz Ndoye ak euh, ay xaritam ñi nga xamante ni yaakaar naa ni chaque année dañuy ñëw di participer ci moo di bi euh, yenn ndog moom mais tey yàlla def na dal bi kenn xajatu fi dañuy sax toog di inquiété nit ñi gan yi ñëw dañuy am problème ñi ñu bari fi lañuy fanan manam euh, bëgg-bëgg bobu ak yëg-yëg bobu nga xamanteni chaque année da ngay bëgg muy gënd yokku lan la. moy ngëm-ngëm gi mëna wax rek parce que lu dëgg rek mo jëm kanam néna la gëm bay lay ga gam gam bu la kaka guux rek mo xam la moo xam la muy saf gam problème boko ko goxee di nga xam ndax saf na wala saful sukkur. koo koy bay lay mbiram amul lu ciy amul amul tànk ginnaaw tànk kanam la am boo gëmee bàyyi lay dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ginnaaw xoolal yow sa bopp xoolal sa bopp boo gëmee bay lay te amoo yokkute yokkute ci sa bopp xoolal xoolatal sa bopp ku ko gëm te dëggal ko parce que yàlla ko yebal moo yonente ni ku ñuul ni moo xeeb boppam rek xanaa ñun yow xanaa ñun yow xanaa ñun yow waruñu am boobu xanaa nit ku ñuul du du nit. nit ku ñuul nit ku ñuul lan la lan la ko nit ku weex yóbbul xam-xam bu nit ku weex am nit ñul am na ko. nit ku nit ku ñuul doomu aadama comme nit ku weex bu ñu see dañuy dañuy jur doom nit ku nit ku ñuul nit ku weex bu ñu see dañuy jur doom kon kay comme benn lañu. waaw lu tax nag nit ku ñuul nag di xeeb boppam nag ba ne moom wala mën a am yonent. macha allah loolu ñàkk gëm sa bopp la bokk benn bi mooy dañuy dugg si euh, depuis loolu aussi gis nañ chaque année macha allah sa ay nit sa ay xarit ay am di jàmm dañuy ñëw assister la ñii dañuy fanaandoo ak yow ñii dañuy xëy yendu si ak yow ba appel bi jeex maanaam ñoom tam cofeel boobu lan la sa diggante ak ñoom ànd bu yàgg la wala lan la. loolu lépp mooy ba tey di ma la wax rek parce que fii ku fi ñëw man anduma ko man anduma la fi woote bi nga wuyu si. parce que Baye Laye ma ko waxoon moo Baye Laye moo ne woon yaakaar leen sàkk gan yaa ñëw ba mu koy wax nag ñu ñun ñu ko gëm la ko wax nañ yaatal képp koo xamante ne nii. waaw mu ngi noonu Père Abdou Aziz Ndoye wax dëgg yàlla ak yonent bi waxtaan ak moom duñ ci doyal mais daf di euh, loo xamante ni mënul ñàkk. parce que ay euh, ay nitam ñu ngi toog euh, di ay am jàmbam mënul ñàkk ñu jox leen parole ñu ñoom tam ñu wax ñu lan lañ yëg ci euh, ci bés bi bésu woote bi macha allah Ilimane dañuy ñëw père ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant. waaw di di la ñaanal tam suñu borom gën a yokk bi gën a dëgëral taxawaay bi ndax ñun ñi kenn duñu nettali dara wax dëgg yàlla yéen fekk nañ lépp waaw bu dul conseil bu dul dara wax dëgg yàlla yonente bi cër bi ñu jox rek loolu dafa rëy si ñun moo tax ñun ñu ñeme la ba lépp lu ñu mën tamit aussi ki ñëwal la dañ koy def yàlla na yàlla yokk sutura yu baax a baax a baax ci barki Seydina Mohamed sama père maa ngi lay nuyu di la ziar waaw ginnaaw euh, nit nit nit nit nit nitam nit xaritam nit mbokkam waaw lépp lépp lépp benn la ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar la euh, di la daral ci euh, bés bi nga xamante ni mooy tey bésu appel bi di laaj naka nga ñu mën a expliquer ci loolu waaw di sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam euh, di félicité Ndoye di ko encouragé si li nga xamante ne mu ngi koy def vraiment te chaque année ay nag yu huit cent mille lay jënd nag yoo xamante ne vraiment ndawal dëgg lay doon moom lay jël di investir xaalisam pour dalal euh, nit ñi quoi di ko ñaanal yàlla yàlla gën ko yokk yok ay xewlam dafal ko sutura mais nak limu daf ni mom euh dafal jarna lu opol sayyidina limam alayhi salatu wassalam parce que moy yonent bi mom la dem mom la tay wax bi nak dafa reuy mais sayyidina limam ak euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu melni ben tandarma nga xar ko ci deug bi euh mu ngi melni aussi taw bi saxal ak taw bi ñarul lépp benn nawet bi la te Seydina Limaamu alayhi ñëwee lan la wax yàlla moo ma yónni maay maadiyu man la démb tey maadiyu wax bi nag dafa rëy mais yàlla nag dara rëyul si moom parce que euh, mbir mi bi mu laata si ñëw ñëw si moom ay tegtal la parce que biddéey bi bu laar bi si tegtal yi la bokkoon fi nekk mille 1882 un naa la fi def te du woon suux même bëccëg bi da doon feeñ si la baay laa yéegee ne mission bi ñëw na indépendant de mission boobu de par exemple boobu ànd am na benn tremblement de terre bu ñu doon wax amoon euh, kii euh, Indonésie Indonésie si tegtal yi la bokkoon même Ibn Abbas bi nga xamante ne kii bi feeñ na bi déewu laar bi moom dafa tiit parce que tegtal yi gisoon na tegtal yi ba xam ne tremblement de terre bi jege si na waxtu wi jot jot si na moom dafa tiitoon effectivement Krakatoa boobu ngi wax ne euh, euh, axlulaay dañ leen tànn démb démb fu la boole aussi nit de yàlla moom lay sant gi ñun motax ñun dañu wara sant bay poj. dañ nan tané suñu borom. tané suñu borom lu ginaaw loolu mu woote Ibn Sirin wax ci loolu mu wax ginaaw loolu mais jangale yi Baay mo fi andi genn wir genn asaka ci ci salaire yow mëno di liggéey am 2 millions de francs nit ki di bay yow nga am am 100000 yow nga ne borom 100000 nga genn asaka borom 2 millions dañ ci xaalisam ñu naan nag li nga denc bu déwén te quran wax ne len rek la wax genn len zakat seen alal lepp lu ngeen gop après ni ñofi ñop di andi ay hadis naan bo yorent bi ni lañ ko doon yone yef mais jet demal ci alquran bi rek lim la wax te zakat dimbal la pour dimbal doom adam yi donc salaire war na ko meuna genné pour dimbali ki yow nga ne loy denc bu déwén est ce que yow déwén ni nga fekk ke nga wara dimbali déwén আমার কাছে wax dëgg yàlla bi muy sen sen seen xarit seen doomu ndey macha allah rab rabi di woote at mu ne fii ci euh, dal bi naka ngeen di yëgee loolu. waaw maa ngi leen sant di leen gërëm ci si ah gëstu bi ngeen di gëstu ci dal bi kii boo ko xoolee ginaa yàlla ak bi sunu ñun sunu nijaay la ak baaxam ak tabeem ci saaba ci ci saaba yi Seydina Limaamu yi si la bokk parce que Seydina Limaamu moo ko tànn sas ko te lii aw sas la waxoon ne mi ngi koy bay te chaque année day gën a jëm kanam. man mi maag samay morom matoon nañ ñaar fukk boobu lañu gën a doon tuut tànk suñu biir la nekk ginnaaw yàlla bu ngi demee ba am benn éducation bi ak benn retrait bi ci ak ak nekkin doomu aadama ci kaw suuf loxo ma nga ca biir du la wax mukk naka su dul noona liggéeyal jaamu yàlla fonk sa ndey ak sa baay da lay question na sax ba di la laaj ba xam yow sa sa maturité fan la toll nee na nangam ji boo ko nangam lan la la fekk nga wax ko sa xalaat mun la bàyyi lii defal lii defal lii kan moom dafa nekk koo xamante ni lu mu am nii jomb ko waaw da ko loo xamante mérite la da koo war a am parce que moo ko liggéey sa kër sëy naa limaam sëy naa limaam mu fayal ko kan boog li mu nii du ko jomb ci àddina parce que dafa baax daa ku mën a yar nit la te ko mën a indi ko doomu aadama la waaw te lu mu am rek bokk ak doomu aadama waaw ma leen sant ci gërëm ci initiative bi ngeen def parce que ku def lu baax lu baax rek ngay am waaw maa ngi leen ñaanal yàlla a ah, bu fekkee télé la yàlla leen yàlla ah, ubbil télé bi mu gën a yaatu mu am ay tànk ginnaaw bu déwénee ngeen gën a am ay jumtukaay yu xarala yi gi gën a ñoŋ yàlla leen ko yàlla defal defal ko mboole mu julit a ah, ku liggéeyal sëñ naa leen moom sëñ naa leen moom fay la waaw maa ngi leen sant di leen gërëm ah di leen jox waa seen wàccuwaay kii moom wax dëgg yàlla ku baax la moom waaw ku baax dëgg yàlla ba ba ba li ma yàlla dimbale moo bërwati fu ma ko fekk fu ne lu baax la may dox lu baax la may digtal man ndox dëgg yàlla aw mu fayam waaw aw mu fayam wax dëgg yàlla waaw. kontaan nañ ci loolu liñ naan euh, àdduna noonu la wax sa euh, baaxu nit du wàññi sa mbaax dara rawatina ngay wax loo xamante ni maanaam ña ngi koy wax sa xam nañ ko. waaw ñun ñi bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu tollee fii ginnaaw yàlla loxo muy ci biir jaajëf. am na lu ma ciy dolli lu ma ciy dolli loo xamante

mu ne yóbbu leen lépp ngeen defar bam bax amul ben ñam bu dugg ci gémmiñam newu leen togg leen ngeen indil ma newu leen dara lépp lépp lépp fi la ñëw defar ko bam bax ci barke Seydina muhammad lépp lépp lépp ñun fekke nañ ko ma sha allah dëggal waxam ji rek. beneen bi jënd na aw nak nak wu jël xaalis bari gay reporter gay reporter appel bi ci corona bi. gaa yëpp jaay seen nag. ñëpp jaay seen nag. man man nak poli ñu na man jaay mako ko. dama ci fay ay 700000. moom mi may question yi moom mi ci ci moom mi ca njëkk rek la bokk kama kama kama fay prix dama ko ne bàyyil bu jour tel nga ñëw ba ma ñëwee jour ba dama jox gars yi paaka gas ne rey leen ñu rey ko man leen sàmm leen ko ñu sàmm nag wi ma jox ñëpp ay sàmm joxaale ko sàmm moom li ko demal parce que parce que ma bàyyi lay bàyyi lay moom a gën a milliard bu bu nag bu doon jar ay milliard danaa ko rey jox ko nit ñi ndax man defal ma ko sama bopp kama koy defal xam naa ko jaral ma ko mooy Rasulullah Rasulullah nag li li li am soo ci àdduna nga fexe ba muus ba liggéeyal ko ku ko def raw nga. <laughs> gis nañ loolu li muy wax nii muy lu ñuy dëggal wax dëgg yàlla ak yonent bi ndax ñi fa jëndoon ay nag bëri na ñëpp dañoo jaay seeni nag mu ne man sama nag sama yéene laa yeggali waaw muy wax ju rëy ni ñuy def kaf ba jour yi ñëpp gis mu saam ay ndawalam génne ñi mu war a génne la ca des mu yóbbu këram ñu xéewlu si ñun ñëpp mu ne dara du fi fanaan na lépp génn. waaw kon euh, li muy ni mu ko waxee rek ñun fekkee nañ lépp waaw laaj moo fi am nii rek mais bëri na yoo xamante ni mënoon nañ ko wax. ay ca ba tey ah, ñu ngi toog sunu sunu sunu sunu sunu kilifa parce que sa grand sa kilifa la sama grand ñu ngi lay nuyu baax di la ziar ah, di la fekk fii ci dalu père Abdou Aziz Ndoye euh, chaque année yàlla def ñu teewandoo ko fii waaw ñu lay laaj noo gisee euh, dal bi ak Abdou Aziz loo ñu mën a wax ci moom. yow ku baax na ma lay ziar di sant. man bu waxee rek warutuma wax mais yow ba ma ñëwee rek damaa gis nga ak ma accueillir ma neex xaw ma ne woon sax yaa yor télé bi man kii sama mag la yàlla ma booleeg moom. yàgg na quoi dañ ne mag baay la mooy sama baay su ma jaaxlee ci moom lay ñëw suma ma kontaanee su ma lay ñëw lu ma mos dal ak bànnee su moom lay ñëw fu mu dëkkal ma ko fekk mag baay la man mu lay topp mooy sama kilifa. ay jamono nag daanaa ñëw fii am ñoo ma ne xarit xarit rek dañ dal si seen dal si yoo Baye dafa dafa yaatu mais ba ba ma wowe ne mo Omar am lu mo wax motax tax ba ba léegi nag dama koy top ni ci def ne après ma ngi sa ñom na wax ak ñom mais sama kilifa lu mo wax loolu lay def après dañ ka comprendre man sa man nak man ma ko fay dama koy baye yalla suñu mbokk rek ñoo fi top amna ñoo xamanteni fuñu dem rek yalla mo leen andi fi xolam mo koy fay loolu yalla mo ko baxal fu mu dem rek yàlla moo ko baaxal ñu ngi ñaan li mu mën rek yàlla mën déwén yàlla mën lu ko lu mu am rek da koy bokkaak nit ñi ay mbokkaam ñëpp ak gërëm dafa dëggu te bàyyi laay ko dëggu la bëgg man day mënumaa dara man sama kilifa la li ma la wax rek mooy mag bàyyi la falaa mën a yem quoi di ko ñaanal yéen tamit li ñaanal seen seen seen télé bi yàlla daf ko ba def ay télé télé man daal li ma la wax rek mag bàyyi la quoi man moom moom moom moom laa toog lu mu wax rek la su ma nee Omar bàyyil ma def su ma nee defal yéen yéen ñu yàlla na yàlla yokk seen xéewal ak seen sutura déwén ñu amaat lu lu ko ëpp jërëjëf waaw jërëjëf mu ngi noonu kontaan nañ bu baax a baax ni ñu koy waxee maanaam ay xol rek la ñuy waxee ndax euh, di créé wax yomb naa xam waaw nit ki waxee xol tam aussi yomb naa xam ca ba ah, ñu ngi ci biir dal bi di euh, waxtaan ak jigéen ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñoom ay waa Thiaroye sur Mer lañ chaque année fi la ñuy ñëw yendoog ñun ba ngoon jot ñu dem ñibbi muy lu rafet di lu ñu rafet na aussi tey dañuy dañuy laal quelques interviews si ñoom rek euh, di euh, nuyu sama xarit sama jigéen muy lu yàgg waaw ay na day dëgër moom kenn du ko ci micro mais garaawul quoi tur bi naka la. mami mami mami waaw. mami soxna mami ñu ngi lay nuyu di la jaar baax a baax noo gisee appel bi. ah macha allah macha allah laay waxtaan appel bi moom dëgg yàlla ah, allah daal rek la ñuy wax waaw defoon nañ ko daaw fekke déwén. Nawan fa rek di ñaan yàlla jëm ca kanam ca kanam kanam rek incha allah waaw. naka lekk yi ndékki ak yooyu xam nga yow da bëgg ay ndékki ak ba mbaa waw waw lek na ba sour dara manké wul ke dara manké wul <laughs> sha allah da be eh, contane eh, nañ ci lolu ki soxna la di séri kamu mom mënul wax mais ili jën ko rek Fatou Diop séri kamu mom mënul wax dañuy doxantu xam nga ñew ci sunu yaay boy la. ah di sunu kilifa moom tam wax dëgg yàlla ak yonent bi yar ñu tette ñu may ñu fit di ñu ñaanal fu ñu mënti toll mënuñoo ñëw tam te duñ ko dénk micro bi. yaay booy ginnaaw bi ñu leen nuyoo noo gisee dal bi ak chaque année muy gën a yokk di gën a neex. sant yàlla yonent bi rek di sant sama sama càmmañ li rek macha allah dara jeexul ndóoy noonu rek la mel ñun ñoo bokk baay ñu sama nit ku baax la. dina dina seen alimaam amul loo xam ne rek attan na ak ñepp képp ko fi taw yal na la yalla defal wër ak wér le gudd fan ci barke Seydina Mohamed jëf yalla contane nañ ci lolu contane nañ solo ci baña wax moo tax ngeen neubut waaye amul benn problème man garaawul amul benn problème salaamaaleykum kan mo bëgg wax kan mo bëgg wax muy non ki sama jigen la di do sama jigen nek do sama jigen wax di nga mënul ak li fi def demb yëp amul benn problème. kontaan naa ci moom mais jëlal ma ko rek sama jigéen la gis naa muy toj wat kii Facebook bi rek ñoom seen ñoom ñëpp. ndoo yi la nga xam ne ñoo nekk Kër Mbaye Fall chaque année tam dañuy ñëw gunge Tata Soda ci euh, événement bi nga xamante ni moo di euh, appel bi wax dëgg yàlla mënuñu leen ñàkk ba ñu jox micro yaay booy ci loo ne mbaa yaa ngi ci jàmm kii nelaw jëluñu la garaawul. jàmm bu baax laay maxtaar waaw dañoo dëkk ak euh, Soda ak borom këram Ndoye ñuy nit ñu baax. ndax sooda mii do am na doomam yoo xam ne suñu biir kër fa la ñu juddoo faaleen moom sooda mii ndooy mee doon nit ko baax waa kër Mbay Faal ñu bari ñun am nañu ay dal ci biir dëkk bi waaye fii la ñuy dal ndax seenug baax ak seenug yaatu ñu di leen ñaanal du tey nag lañu dale ñëw ñëw ban fi dalee ñëw yàgg na buñ ñu waroon beneen bët kon dañuy toog ndax dal yaa ngi ci biir dëkk bi ñu di leen ñaanal lu ñu man ren yal nañu man déwén lu ko ci barke Baay Laay Seydi soo de nit ko baax la jëkkëram nit ko baax la ñii ma dëkkal kii ma dëkkal mooy Ndey Mari di xale bu baax ndax kër gi mu dëkk ci suufam falaay jaay xale yi dal nañu macha allah ñoom ñëpp nag ak i magam ak i rakkam ñoom sant nañu bu baax yal na yàlla bàyyi yal na yàlla ak bàyyi laay def ba ñu gën a def lu gën a kawe sunu njort ndooy mi yal na dund ba dem màkka sooda mi yal na ko yàlla yóbbu màkk ci barke yonente bi kontaan nañu bu baax ñun waa Kër Mbay Fall wax dëgg yàlla dara du jeex dañuy lekk ba suur naan ba màndi bu ñu dem dañuy ëmb yóbbu waaw jërëjëf laay maxtaan ndeysaan mu ngi yaakaar naa ni lii ku noonu ah ba tey niñ koy defee boobu ba léegi ñu ngi dugg ci bâche bi ñëw nañ ci gàlle bi gis dëkkandoo yi et ñi nga xamante ni ñoom ñooñu dalal fii nga xamante ni moo di Yoff chaque année ñu fi ñëw di def appel bu bu neex macha allah bu gan yi ñëwee niñ koy waxee dañuy jël seen lépp lépp lépp lépp yombalal ñu ko macha allah doo gis benn dérangement boo xamante ni day feeñ seen kanam ba tax nit ñi ragal kon day rafet tey yu ñëw waxtaan ak ñoom waaw ki ma dogal nag bon sama capot la sama grand la grand Ibou xam nga yàgg nañ ko bëgg nag mais xëy na tey la ko yàlla do dogal ci euh, ci ci ci ci appel bi le grand ginnaaw bi nga nuyoo ñu ngi lay ziar bu baax a baax ñu dugg ci waxtaan bi. Euh, waaw mon frère euh, suma rak maa ngi lay ziar di la gërëmaat ndax dama jàpp ne bu diine xewlee ak tarixa bu mu mënti doon. ñu ñëpp ay jullit lañu rawatina tey jii muy bésu Seydina Limaamu Laay alayhi wasalaam mi nga xamante ne nii moo wootee aji boo daay laay yaa macharal ilsi wal jinni inni rasulillaahi ilaykum donc lu tax ma xam loolu dama dëkk ci dëkk bi Seydina Limaamu woman ma ci biir Yoof donc tarixi ba mu murit ndax bu màggal jotee damay dem màggali mais saa yu Seydina Limaamu xewlee damay jàpp ne man maay Baay Faalu Limaamu moo waral lépp loo xamante ne ni dafa lu war ci bés bi wala ñu war ko def ci bés bi ma def ci lim ma koy defee Touba donc bon di remercier ñi nga xamante ne ñëpp communauté laayeen lañu donc parce que defe naa adduna moom euh, ñëpp baatu ashhadu euh, an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasulullah la ñuy wootee ndax ndax kenn rek la ñu mu muy Seydina Mohamed kon ñun tey bu ñu toogee yoof am ku ñëw taxaw ne moom mooy limaamu kon nañ jàpp ne yonent yàlla Mohamed mu ngi yoof tey de boo demee ci sëriñ Touba dafa dafa ne xaadimul rasul mbindaanu yonent bi kon ñun Sénégal nañ sant yàlla nañ sant yàlla ndax dëkk bu baax la dëkk boo xamante nii macha allah daal. donc ay kilifa yu am na ay kilifa yu baax. donc ñu koy sante yàlla bu baax. di wax ne appel bi ñu nekk nii yàlla nañ ko fekkee ay at yu bëree bëree bëree bëri. te luñ ci def yàlla buñ ko réccu yàlla na yokk ay at yu bëree bëree bëri. donc di kontaan bu baax aussi ci yow ndax yow ci moom frère. te defe naa ne waa ñi fi dal ñëpp benn famille bi ndax tey jii dafa mel ni maa ngi ñoom ñoo bokk ndey ak baay. donc di remercier aussi sen télé bi waaw double i euh, mm-hmm. ma ma di leen remercier di nan yàlla yal na yàlla teg seen loxo ci seen kaw donc li ngeen bëgg yéen a ko xam yal na ko suñu borom def ci barke ci barki borom bi di Seydina Limaamu mi ñu yaakaar waaw kontaan naa trop nag waaw kontaan naa waa jaajëf waay jaajëf aywa macha allah boo gisee communication bi da ngay xam ni am na nu mu demee parce que ki ñu tam aussi euh, grand artiste la fii nga xamante ni ci Yoff xam nga ñun moom ni ma ko waxee rek euh, yàlla mo dogal tey ñu toog mais yàgg nañ bëgg jotaay bi grand Ibou muy euh, sa talent kenn dootu ko naatable parce que am na ay œuvre yoo xam ne amoon nañ ko ci yow te li wax rek double yi bëgg na liggéey ak yow waaw incha allahu rabi loolu xam naa après appel bi dinañ ci wax yaatal si parce que tam ñun am na ay am na ay yoo xamante ni tam dañ koy dañ koy innové ci affaire euh, événement yeeg yooyu mais grand di la gën a ñaanal suñu borom gën la teg loxo yow tam aussi gën la taxaw parce que gis nañ accueil bi ngeen bi ngeen ñuy defal te yow mënoon nga ko bëgg tam mais sa jabar bañ ko waaw mais xam naa ni boo ko bañoon sa jabar bëgg ko tamit day gën a neex. ndax xam naa ndax moom laayal la. non yow da ngaa nopp léegi. non euh, c'est que moom <laughs> mooy li ma la wax ne ñun ñun ñun ñun ñun ñun yàlla moo ñu dimbali. dëgg la parce que moom. Mm-hmm. Euh, ay waajuram yu góor. Mm-hmm. waa kër Cheikh euh, El Hadj Malick lañu. macha allah ay taalibe Cheikh bon man mi nga xam ne maay borom këram. Mm-hmm. man murid laa. waaye ba mu ñëwee gis ne moom waa laayeen dañ ko neex dafa bëgg laayeen yi seen laan li maamu dafa nekk ci xolam moo tax mu ñëw mu ne man de laayeen laa bëgg doon ma ne ko fu ñu fu ñu jaar yoon la nañu jaar ci yoon ñu baax rek mais fu ñu jaar yoon la donc moo tax tey jii mhm. moom soxna Leyti Laay laa koy wax. <laughs> waaw soxna Leyti Laay waaw soxna Leyti Laay mu limaamu. loolu lañ ciy leeral waaw soxna Leyti Laay mu limaamu <laughs> waaw waaw waaw waaw. merci aussi bu dee ci côté musique Firdawsi laay wax <laughs> waa jaajëf waay waaw. ok xam naa dañuy ñëw ci euh, ci soxna Leyti macha allah ñu gën a yaatal le grand kontaan nañ ci yow bu baax a baax. Aïcha mu ngi noonu ba tey ni ñu ko waxee rek ah ñu ngi toog ki nga xamante ni moo di soxna Leyti mu limaamu parce que borom këram moom moo ñu wax tur boobu muy tur bu ko neex macha allah soxna Leyti muy tam euh, soxna xamante ni ñun tam depuis que ñu ñëw fii ba léegi daf ñoo jàpp bëggal ñu boppam fonkal ñu boppam man moom wax dëgg yàlla yonent bi man dafa ma jox wàccuwaay boo xam ni man dafa jéegi dayoo dafa ma jox cër jox ma maanaam li yàlla xam doone daal yàlla na yàlla yokk sutura bi soxna Leyti ginnaaw bi ñu la ziare ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi comme yow yàlla def na chaque année yaa ñuy dalal fii waaw mënuñoo ñàkk ba ñëw toog waxtaan ak yow. sant ndax lépp moom la waaw ñun suñu lépp dañ ko jox Seydina Limaamu alayhi salaam waaw man nag soxna Leyti Laay mu Seydina Limaamu ku ne xam na ma appel bi dañuy ñaan yàlla rek di ko fekkee at mu jot te yëf yi di gën a yokk te gis naa loolu sax yokkute bu rëy ndax koo xam ni ba muy commencé ci lu tuuti la commencé woon ci ginaar benn ñaar ginaar ba tey jii gis nga sant yàlla daal sant yàlla bu baax a baax a baax waaw suñu lépp nag Seydina Limaamu alayhi salaam la waaw. soxna Leyti euh, kontaan nañ ci loolu baax a baax ndax euh, li olof naan wàññi boo gis ci benn lay commencé mais pour nga yegg dis day fekk sa gëm-gëm moo fa yóbbu waaw ñun tam aussi fekk nañ lu bëree bëree bëri donte euh, bi ñu commencé affaire bi yàggul ak loolu mais nooy dundee appel bi bu ñëwee gan yéeg yooyu ndax gis nañ la. macha benen soxna Leyti ngay don waaw. <laughs> lolou mbekté la am kontaan waaw bu wér sax lu wér lu wér. waaw ñun nak mom bu appel bi joté woté bi woté seyna limam comme dafa ni won mom nañu dalal gan yi. kon ñun lool rek lañuy def suñu yité yépp ci li lañ koy def. wax deug yalla ndax seyna limam mom ku ko déggul it xam nga ko. waaw ndax mom aduna yépp xam nañ ni. waaw. moo weex dem ñuul tey kon nag jaral nañu lu nekk ba tax na bu bu egsee mhm. euh, lépp daal dañ koy teg fële ni kii rek moom rek moom rek leneen bokk loolu moom rek waaw <laughs> waa ñu jox lépp nag gan yi teral leen ndax loolu la santaane nañu génn suñuy néeg yi mhm. joxe lépp lu ñu am teral gan yi waaw loolu daal la def moom wax dëgg yàlla ndax bàyyi laay moom amul maas waaw àddunaa ngi noonu lépp lépp lépp Sénégal la te yàlla na jàmm yàgg ci barki Seydina Mohamed soxna di kontaan nañ ci yow bu baax a baax kàddu kàddu mu gi lan waaw xanaa di ñaan seen tele bii rek seen kii bi lii bi <laughs> seen sit bii rek yàlla yokk ko ci barke Seydina Limaamu ngeen am ay télé télé nag wax dëgg yàlla. te dina am sax incha allah. suñu bëggoon liggéey ak grand yi mbaa dina yomb suñu buñ jaaree ci yow. ah loolu lu wér la loolu dafa <laughs> loolu kay loolu kay mooy géej gi am na ndox wax dëgg yàlla. loolu xam naa lu bëgg ci moom moom il faut ma waxtaan ak yow ba pare nga lijjanti. loolu am na ndax moom mooy man maay moom ndax bañ na ko ba bu may dugg ci li euh, Limaamu bi wax dëgg yàlla nekk laa yéen. ci ndigalam laa ko woy defee ndax moom comme ni mu ko waxee léegi rek euh, moom murit la murit la waaye nag euh, comme moom Baay Laay dafa fees dell sama xol bi ma ko tàggoo tamit waaw ak lu bëree bari lu ci ba jaar dafa ma jox ndigal ah, may wuyoo may wuyoo laay rek. yàlla yàlla mu ngi noonu yàlla yàlla yokk sutura bu baax a baax mu ngi noonu soxna Leyti mu Seydina Limaamu la ñu fekkoon ko fii ci këram ak sunu grand Ibou wax dëgg muy grand frère bu baax a baax a baax a baax ñu di ko ziar bu baax a baax di am contentement bu baax Ili fii la ñuy tëjee vidéo bi ñu ngi gërëm képp ku nga xamante ni yaa ngi teew ci appel bii nga xamante ni mooy appel bi Seydina Limaamu woote rawatina dal bii nga xamante ni moom la Abdou Aziz Ndoye andi fii ci kër gi nga xamante ni moom la ñoom soxna Leyti nekk ak Grand Ebou di gërëm Père Aziz bu baax a baax a baax a baax ndax lii muy def nii yëpp mënoon naa ñàkk mais chaque année day jël dooleem kàttanam lépp lu mu mën def ko ci appel pour ñëpp am jàmm pour ñëpp mën a bég nañ ko ci ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom gën ko kàttanal ci barke Seydina Limaamu gën ko yokk waaw parce que àdduna tam aussi nii la def yokk waaw te mu ngi ci yoon bi ni ko ñaanal suñu borom gën ko kàttanal bu baax a baax baax di gërëm waa kër gi ñëpp dëkkandoo yi ñëpp parce que gis nañ dalal bi ñuy dalal heure bu ñu ñëwee dañuy jël seen seen lépp jox ñu ko parce bu la ubbilee kanamam rek jox na la léppam wax dëgg yàlla dañuy ubbil seen kanam ñoom ñëpp ba koo ci gis da ngay sentir cofeel ak nameel gi mu am ci yow di ñaan suñu boroom yokk ñu sutura bu baax ci barke Seydina Mohamed ñi ñu fekk ci kër gi nag ci kaw sa waa sa waa sa sa waa appartement bi mm-hmm. waaw man gis naa leen mm-hmm. ñoom macha allah <laughs> waaw xaw ma ñoom <laughs> am xanaa da am ay pël. <laughs> waaw ay pël la waaw macha allah moom kay moom. il il yaa ngi gis police ka yaa ngi gis. gis nga leen non. macha allah am nañu ne ci biir. parce que lii mooy jàmm yàlla jàmm yàgg yàlla yokk sutura bu baax yow tam suñu borom bàyyi la ak sa borom kër. ba ci kanam kanam kanam ba projet yi nga xamante ne mu ngi seen kanam suñu borom def lépp sotti parce que mën na ko yomb na ko doyewu ko dara lépp ñun la yàlla ko yàlla yombal ci barke Seydina Mohamed di leen joxaat rendez-vous ci beneen numéro ci beneen appel ci beneen dal fii ci euh, dalu Abdou Aziz Ndoye incha allahu rami di yalamin euh, double yi ili ngi lay bëggee di bëggee staff bi yëpp ay ca mu ngi noonu jaay